dalee nag jàmm ñu ànd xëy yër yéene ñu xëyandoo yéene kaay la ko xëy dañu xibaar naan ñu élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmale jamono ji contestation yi ak ñaxtu yi bëri na genn xeetu bëri goo xam ne fu ko waay nat daan na koy passé ci biir Benno Bokk Yaakaar ak ci opposition bi ndax boo demee ca diwaanu Thiès foofee nag ñoo ngay xiiroo ñoo ngay ŋaayoo boo demee ca diwaanu Fatick foofee tamit ñoo ngay xiiroo ñoo ngay ŋaayoo boo demee ca diwaanu Rufisque foofee ñoo ñëwee ci diwaanu gi de Le Quotidien nee na en tout cas li gi bëri na lool ci yi nga xam ne moom lañ fi gis yéene kaay gi de Les Échos nee na benn coalition benn bokk yaakaar ak cacophonie bi nga xam ne moom lañ sa gis ndax Cheikh mi nga xam ne moom lañ jiitu réew mi di président Macky Sall jiital benn bokk yaakaar ci diwaanu Grand Yoff Cheikh Bakhoum moomee nag gars dañu ko contesté maanaam ànduñu ci benn yoon yéene kaay gi nee waa Grand Yoff di dem ci biir réew mi gis nañu ne Macky dafa nag ngar daajoo mbooleem li nga xam ne ay mairie la ak ay département jox ko waa APR daal di suqi waa parti socialiste ba ñu seet weccee ndax ca diwaanu jëppale yéen a ne na Babacar Sadikh bee lañ fa teg waaye nag Birane Ngom ma nga xam ne ma nga fa moom tim dafa berlis boppam yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar nan ñu Abdoulaye Diouf Sarr mi nga la ñu tànn ci diwaanu Ndakaaru ngir mu jiite liste benn boo xam ne nekkul mission bu yomb maanaam ak a kaay gi ne na yi nag maanaam ci benn bokk askan wi ci diwaanu ndakaaru mbir mi dina seere lool loole bay boo ñu xaar ko yéen kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu doxalin wii nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi koy doxalee ci lu jëm ci wàllum tànn gi ci élection locale yi en tout cas daal je trouble de Macky yéen kay gi nee na xel dang tey na waaye nag Macky Sall stratégie yi nga xam ne ma ngi koy teg doy na waar yéen kay gi di enquête nee na njiitu mi di président Macky Sall gis nañ ne bëri na ay ministre yoo xam ne dañu leen a investir Sall nag bëgg sukkandiku ci gouvernement bi ngir gagné mooy élection locale yi yéen a gi ñëw na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am diggante Abdoulaye Wade ak Pape Diop yéen a kaay gi ne na Pape Diop ci boppam moo bëggoon a ngar daajoo nag ay communes yu baree baree bari ak département yu baree bari loolee moo waral nag xulóob Abdoulaye Wade ak Pape Diop yéen a kaay gi ne na fi nga xam ne sax mooy département bu Mbacké ak commune bu Mbacké Pape Diop ne tamit fi nga xam ne mooy ville de Dakar loolee du ma ko waxaale maa koy jël surnal bi ne na loole nag ci boppam moo waral pëcc xoo gi nga xam ne am na ci wàllu Sénégal ba Pape Diop nag di ber langug boppam las élection locale yi ak ñi nga xam ne ñooy grand absent yi maanaam ñi nga ne duñ si bokk ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall ak Aminata Touré ak Amadou ak Makhtar Cissé ak Cissé Lo ak Sidiki Kaba ak ñeneen ak ñeneen yéen kaay gi ne na Amadou moom na dañu koo sappe ci gouvernement bi ba pare fàtte ko ci élection locale yi yéen kaay gi ne na Amadou Ba moom jamono ji dafa mel ni waa APR bëgguñu Amadou Ba yéen kaay gi de Les Échos nee na Aïssata Tall Sall diggante Aïssata Tall Sall ak Racine Sy sa diiwaanu Podor waaye nag Aïssata Tall Sall démb daal nee na nag rocc na candidature am yéene kaay gi nee na kon daal jàppante du fa am Mamadou Racine Sy moom nag jamono ji ginnaawam bandanga yéene kaay gi di l'info nee na nag opposition bi victoire bi nga xam ne mënoon nañu koo am ci élection locale yi ñu dëgmal opposition bi ñoo ngi koy yàq ndax nag seen bantu victoire bi nga xam ne moom la ñu toog jamono ji moom la ñuy gor ndax nag opposition bi gis nañu ne dañoo xaajalikoo ci seen biir te nag bu ñu xaajalikoo loole nag mooy jël victoire bi bi defar ko ba mu jekk nga jox ko waa Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi ñu koy fekk fa Talla Sylla moom nag nee na daal élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal amul kenn ku dul yàlla sunu borom ku koy tere bokk ci élection yi moom Talla Sylla diwaanu Thiès yéen kaay gi di direct news nee na nag ca diwaanu Louga foofee président Macky Sall dafa organiser li nga xam ne mooy ay primaire diggante nag ki nga xam ne mooy Mamour Diallo ak Moustapha Diop waa lan moo tax président Macky Sall bàyyi ñaar ñii daal ñu a jongante bëgg a laalante ci diwaanu Louga te bokk fenn fu ñu kaay yi yéen a kaay gi nee na ay primaire la président Macky Sall organisé yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar nan ñu am na kenn koo xam ne doomu Mauritanie la dañu ko teg loxo ci diiwaanu Ndakaaru ci benn hôtel ndax dañoo njortu ne ab terroriste la yéen a gi di réew mi ko di cee xëy seeq waxtaan wu yaatu ak Samba Sina ñu gën koo xam ci Kouthia di ab comédien boo xam ne ràññeeku na lool la Kouthia nag bi ñu ko laajee nee na nag fi nga xam ne fa la commencé daal maanaam wàllum lépp ak wàllum jax ne na nag talaam ci boppam dépassé na nag frontière yu Afrique dem na ba diiwaanu Amérique ndax toppandoo ki nga xamante ni mooy Donald Trump ak Hillary Clinton boobee nag Amérique si boppam ko caa nee na dañu ko doon waxtaanee am na benn journaliste CNN boo xam ne ñëw na ba Sénégal ngir nag def reportage ak man man ko caa sama talaa génn na Afrique génn na Sénégal meilleur artiste bi nga xamante ni nag moom lañ ma jox ci Facebook bi am na gaa yoo xam ne ñoo ngi soxor ba mara day taale naan fake news la xaw ma lan moo tax gaa yi soxor rek yéen a kaay gi dee sat xëy duñu xibaar naan ñu jamono ci ñoo ngi wër ab entraîneur yéen a kaay gi na ca diwaanu